sëriñ bi Mbàkke ñu ngi leen di ziar di ziar mboolem njabootug Cheikh Massamba tey ngeen teew ci bisub Touba ci kanam euh, tey bis bi naka ngeen ko gisee ak yan soññe ngeen di jox mbokki taalibe yi alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leen di gërëm bu baax di gërëm boole média yi fi teew yëpp di leen sant di leen xamal ne bis bi moom ñëpp ñoo ci maase yam koo ko gis ku ne da xam ne mbirum sëñ Touba rek la war a mën a dem ndax yéeme na lool tubaarkalla ci jëf yi yéeme na lool ci yitte yi waaye yéeme na lool yéeme na lool ci. yi nga xam ne ni ko nit ñi jàppe te mën na xamal lu bare bare tam képp ku bokk Serigne Touba mu wóor la ne Serigne Touba lu mu bëgg aju ko aju ko ci kenn lu ne mën na ko sottal boppam ndax lii di taalibe rek di ko sëriñ Abibu di xalaat wax ne kenn ku ne bu joxee ñaari téeméer képp ci taalibe yi buñ noppee nangam milliards la ñuy nam ko estimé woon noonu la amee ba léegi kawe na njortu loolu sax nit a ngi ñëw joxe ñaar téeméeri million ak juróom-ñett fukk nit a ngi joxe téeméeri million nit a ngi ñëw joxe juróom fukki million ay matériel li fi nekk mën naa nekk entreprise boo xam ne bu ñu ko taxawalee dana doon boo xam ne mooy liggéey mboolem lu ñuy liggéey ci Touba ndax liy defar goudron lépp mën na fee am oto yi indi doj yëpp mën na fee am xaalis bi koy def am na fi kon ñu bu ñu boolee yooyu yëpp bisu tey bii exemple la ci lool bu ñu ko xoolee danañu mën a gis ne ah lu ñu soxla benn entreprise bu mag boo xam ne Sëñ Touba koy moom lu ñu bëgg a godron yi ñu defar ko lu ñu bëgg def ay addiction doo ñu def lu ñu bëgg ci forage mën koo def luñ ko ajati ci kenn ñoo ko yoral seen bopp te loolu sëriñ Abib muy ak Touba ca kanam wane na ci exemple boo xam ne ñun ñëpp xam nañu ko tarafet na mbir la moo xam ne mbirum sëñ Touba nag mbiram dafay def ci ku ko soob la koy jaarale ndax moom ba muy xalaat lii xamutoon nii lay am mel waaye nag suñu borom dimbale na ko ba limu ci bëggoon mu am ko te àggagul fu muy yem sax dana àgg fu ko gën a kawe fuuf dana mujj lu ñuy defati fii Touba ci kanam jiitu. ki ci liggéeyam Touba ci kanam bi yan kàddu nga leen di baaxe li ma leen di wax rek mooy bu kenn bu leen kenn mën ti liggéey Touba ci liggéey ndax liggéey Touba kenn ku ne xam na ne lii sëriñ Touba ñaan ci ci ci ci ma ma ma xaaj ba sax gisaguñu ko kon nag war nañoo xam ne njëriñ mi ngi ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek bu jaayante daal bu ci kenn xeeb dara te waaye ku ci nekk la ci mën na ko def ba mat sëkk te def ngi moom mi ngi aju ci xanaa fi sa kattan toll waaye lu Sëriñ Tuubaa jarul moom amut milliard sax mën na koo jar kon nag kenn ku nekk war naa góorgóorlu ci loolu ñi am ay milliard te denc ko nañu xam ne wàllu Sëriñ ngi ci nañ ko ci joxe liggéeyal Touba la te Touba lu ci waay mën a def danga ko danga ko gis jërëjëf. ñu ngi lay nuyu di lay ziar euh, tey ji ngeen teew ci bis bu am solo bi euh, liggéey bu Touba ca kanam ngeen yore lépp lu jëm ci euh, wàllum discipline ci Touba ca kanam te ku wax murit wax discipline commission boobu loolu ci mën a baaxee. wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sabi ridwaan wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi nuyu bokk yëpp di siyaare bokk yëpp di di sant yàlla bu baax nag di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal Cheikh Ahmadou Khadim euh, laaj bi nga ma laaj ci wàllu discipline bi nga xam ne moo jëm ci liggéeyu Touba ci kanam euh, commission boobu ñu jiite ko bala ñu ciy dugg dañuy wax am benn historique boo xam ne dañ koy indi mooy fi nu toog day bërëb boo xam ne sant indépendance amee arrondissement bi dañ ko def ci tur Touba dañoo xaaj réew mi fukki région juróom-ñaari région région Diourbel ñu xaaj ko euh, six département département Mbacké bi ñu xaaj ko ñaari ñaari arrondissement arrondissement Kayel ak arrondissement am Touba bi ñëwee Sëñ Fall wax ko Sëñ Fall daal tur bii de moom day deñ daal ko yóbbu Ndaam kon bu ñu li ñuy defee te nañ ko defee foofa kon bu Touba ci kanam amee taxawee euh, boobaak léegi di juróom benn fukki at ñu indi buntu ndaam defee fi ndaje mi doomu Sëñ Fallu jiite liggéey boobu euh, sant yàlla la kon day mel ni dañoo du doon liggéey Sëñ Fallu li ci li ma laaj nag ci wàllu discipline bi Touba ci kanam taxawal euh, ñaar fukki nit ak juróom lañu lépp loo xam ne wax la wala jëf wala melokaan wala comportement boo xamante ni nit da koy am dañoo bëgg bu Touba ci kanam wane ci exemple ci groupe yi ndax ci la daje mooy euh, virtuel bi euh, même bu dee ci physique dañ ko ci soxla loolu moo tax ne ñu taxawal commission discipline ñu jiite ko ku ñu wax sañ Sidi Seck moo ko jëkkoon jiite léegi ñun ñoo ko jiite ak waa diaspora bi ñu bokk ko fukk foofa fukk ak juróom fii mu ñaar fukki nit ak juróom lépp loo xamante ne bii luy luy jubanti nit la luy tax mboo nit tege ci yoon loolu commission discipline dañ ko ko sant mu di ko doxal euh, biir wax dañ ko ci sàmm même vocal yi nga xam dañ koy def sax ci groupe yi dañu santaane ñu def ko 3 minutes 5 vocal par bis nga xam ne dañoo bëgg mbooloo mi nga xam ne mooy mbooloo Touba ci kanam ku ko bëgg dajale état la. am naa sëñ bu ñu toppee euh, leeral bi dina yaatu mu mel ne bu ñu waxee commission discipline ak ndaje mi ngeen woote tolloo nag jamono ji euh, dëkk bi wala réew mi wala àdduna bi am na benn euh, pandémie wala benn tawat bu ci dugg ba tax na waa kër docteur ak kilifa diine yi xamante ni ñu ngi ko sant taalibe te ci discipline rek lañ ko mën a appliquer en tant que commission discipline Touba ca kanam ban message la ñuy ci loolu. loolu bi ma xëysee li li ma njëkk a def mooy damaa ñëw distancé sees bi ma ñëwee fekk ñu kenn ku ne ñu séparé wu euh, na un mètre dana xat waaye ñu séparé ba nga xam ne nit dina mën jaar si diggante bi parce que ndigal loo xam ne le chef de l'État moo ko santaane kon sénégalais la ñu moo ñu jiite bu a def sant mbooloo mi itam kenn ku ñëw mu yor masque euh, protéger boppam parce que du caagee nag ni da nga da nga koy def ngir ndigal da nga koy def ngir protéger sa bopp ndax euh, bi pandémie bi amee ak léegi Touba ci kanam ni mu ci jóg di ko ci dox kon buñ dajee mbooloo mel nii war nañoo sàmmante ak sart yooyu fexe ba distancé wu nga xam ne kenn ku ci nekk da nga séparé ak sa morom lu gàtt gàtt quatre-vingts centimètres bu ko defee nga takk sa masque mu sell laal ko fexe itam ne ba euh, jataay bi ñu mëngale ko ak ndigali kilifa loolu moom fas nañ ko yéene te ngi ciy dox. sëñ bi ñu lay nuyu nga nga présenté wu rek. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikhouna Lo Ngabou di membre comité directeur di président sous commission sage ak euh, médiation bokk it ci commission culture ak. Euh, sëñ Cheikh euh, ñu ngi lay del ñu ngi lay ziaraat bu baax a baax tey Touba ca kanam woote bis bu mag ngir lancer opération assenir Touba euh, kuréel gi ngeen ci yore ban bànqaas ak ban liggéey lañ ciy représenté. Euh, jërëjëf kuréel yi nekk ci biir Touba ca kanam kuréel gu ci nekk mën nañu bu. fekkee ne amul lu jàmp lu kuréel googa soxla woo rek ñëpp dañuy maase dem ci li nga xam ne moo gën a jàmp nga xam ne daal kenn du toog ne liggéey naa li ma waroon a def ñeneen ñi ngi liggéey lañ war a def su fekkee ne liggéey fekkantewut wala mu tombe rek ñëpp dañuy maase dem ci li nga xam ne moo gën a soxal jamono jooju mooy li nga xam ne it moo gën a jàmp bisub tey bi buñ bëggoon a xam commission bi ngeen jiitee ban taxawaay la ci taxaw lan ngeen ñuy leeral ci jëf ju am solo ji ngeen lancé tey ji euh, li ñu taxawee ci biir mooy liggéey boo gis muy dox ci àddina kenn ku ci nekk ak bëggam ak xiram xëy na léeg-léeg mooy la muy doxe ñëpp ñoo maase bëgg lu baax ndax bi ñu xasee bokk. Euh, di ay jullit bokk di ay murit bokk ci kuréel bii di Touba kanam kon nooy bokk bëgg-bëgg nooy bokk it lu ñuy bañ waaye léeg-léeg nag euh, xëy na yitte ak euh, xër danay tax ñàkk déggoo mën a am wala kii waxe fii kii dégg ko na le loola bu boobaa ñu fexe ba kenn ku ci ne fa muy waxe kii mën ko faa fekk dégg ko fa wala kii fa muy déggee kii mën a wax fekke ko foofu. boo doon joxe ab soññee wala ngay lancer am message ci mbokki taalibe yi nga xam ne ni tàbbal nañ seen loxo wala tàbbalaguñ ko wala ñu am yéene ji ci Touba ci kanam rawatina liggéeyub tey bi lan nga leen di wax. li ñuy lancer mooy kenn ku ci nekk bu mu xeeb dara waaye bu mu yéem dara. ndax lépp loo xam ne kenn it moo koy def mbooloo moo ko ko dàq ndax bu ñu xoolee biñ ko jotee ndigal li ak léegi li ci dajeegun te wóor na ne genn walaat ga sax ñëwagul kon kenn ku nekk bu mu xeeb dara bu mu naw dara eh, ndax yàlla suñu borom moo nu sàkk bi mu nu sàkkee eh, andi ñu ci suuf ngir ñu nekk fi ay wuutu ko ci kaw suuf si suuf si ñu nekk nag eh, sanq leen wi nga xam ne mi ngi ci suuf. di dox yamb wi nga xam ne mi ngi naaw lenn lu ci nekk ci écosystème bi am lu ko ci suñu borom def looloo xam ne keneen ki mënu ko kon kenn ku ne bu mu xeeb la mu yor na jóg taxaw takku te la mu am lu mu man mu def ko lu mu lu ko nit ñi xool ne li lu rëy la moom bu ko jàppee lu rëy ndax bu ñëwee dina fi am njariñ lu mu nuru lu tuuti bu mu ko xeeb ndax suñu borom kat buy bind dafa wax ne ku jëf lu toll ni ab atome te muy eh, jëmm joo xam ne ju gën a tuuti la wala boog mën nañoo wax ne sax bët mënu koo gis bu fekkee ne jëfandikoo wut leneen kon lépp lu ci waay def rek wala sax yéene ju rafet ak xalaat ak xam-xam lu ci waay am na ko andi ñu ànd maase defar ko ndax bu kenn ku nekk toogee jël li mu yor rek wala ku ne naan damay nekk ba mënal ko sama bopp dara du sotti wala du gaaw waaye bu kenn ku nekk indee li mu man bu boobaa lépp dina jag te du metti ci kaw kenn